asalaamaaleykum mbokk yi seen Allo Dakar TV man dallu Ndakaaru nuyu naa leen sant Diop Ndiaye Darame Diakhoumpa waa Touba waa Mbadakhoune waa Xombal ñëpp nuyu naa leen ci fi méta si yéen kaay yi ayca ñu dem ci Sud Quotidien Sud Quotidien ñu def acte 3 enquête de fast track waxuma ko li nga xamante ni mooy yéen kaay euh, Sud Quotidien moo ko wax su ma sugee ci Sud Quotidien damay dem ca la Tribune yéen kaay bu gaan ngay dandi mu def euh, le temps de la dissimulation hein, secrétariat général de la présidence Omar Sambadja, Omar Samba Ba l'adjoint euh, flaqué de Boun je wax sais pas li nga xam euh, la tribune ko wax su la tribune damay dem retrait de passeport diplomatique blacklisté Manam, retrait yi nga moy passeport diplomatique yi dem yenn ak yenn yi ak yenn ci passeport diplomatique le Macky gouvernement mi ngi ci yoon mu koy ci yoon ci ci l'observateur dama euh, direct info euh, enquête euh, parallèlement sur l'affaire des 94 milliards Madame Ousmane ah, Ousmane Sonko préfère le parquet 94 euh, milliards yi nga dox ci Ousmane Sonko ak euh, Mamadou Mamour Diallo ah, Ousmane Sonko ñoo ngi une enquête waye néna na na dem parking ba ci dem ci suñu suñu ñu def def ki nga entre Luc et Assane Ndiaye Sénégal ci son excellence monsieur le président Macky Sall ma ngay li nga passeport diplomatique yi communicateur traditionnel doomu ministre yi yaa ma neex am ma may la Macky ngi xoolaat lépp lépp waxuma ko de émergence moo ko wax ba altine ak jàmm